mbokk dalen daleen gina ginnaaw bu ñu leen wax lu jëm ci wàllum football rawatina championnat d'Afrique des nations xam ngeen nak tay tey jii de Sénégal wala jonganti ak Madagascar ñeel nak demi-finale euh, bi nga xamanteni mom lañu amal tay jii bu 19h euh, jotee niki dem nak euh, ki nga xamanteni modi Papa Bouna Thiaw def na séance d'entraînement bu mujj foofee sa Alger sa Varika moom nag euh, ci entraînement yi nag ki nga xamante ni moom moo di euh, président fédération sénégalaise bu football di maître Augustin Senghor ak euh, secretaire général am bi nag di Seydou Sané ñoom ñëpp nag ñëwoon nañu fekkee si entraînement yi ñi nag waxtaan xale yi ñaax leen ngir nag ñu am ndam ci seen demi-finale boobee nga xamante ni. moom la ñu war a amal diggante ñoom ak euh, équipe bii di Madagascar. ni ki démb nag si biir entraînement yi seggi nañ fa li nga xamante ni moo war a nekk na ko onze de départ euh, bu euh, Papa Bouna Thiaw ni ki tey jii. joueurs yëpp daanaka ñu ngi fa woon waaye nag dañu am xel ñaar ci bokku ki nga xamante ni moo di Elimane Cissé nee nañu du bokk ci match bi wala sax mu dooree ko ci banc de touche bi moom Elimane Cissé nee nañ nag su fekkee bokkul. Euh, soo moytul kii di Moussa Ndiaye moom moo koy wuutu ci milieu de terrain bi euh, te dina fa ànd sax ak euh, ki nga xamante ni moo di Lamine Camara numéro 5 bi ak tamit Ousmane Mahrouf Kane su fekkee si défense bi foofee nak coppite du fa am ndaxte nak daañu fa am kii di Ousmane Diouf nee sax moom dafa signé sa Al Hilal ca diwaanu Soudan mu war a dem bokk club ak kii di Lamine Diadio bu Casa Sport moo ak capitaine bi tamit di Cheikh Omar Ndiaye daañu ko am si défense bi. Euh, ci côté nag euh, droite bi wala gauche bi daañu am Cheikh Tidiane euh, Sidibé ci côté nag droite bi ñu am kii di Mamadou Sané ci attaque bi tamit coppitee coppite fa am ndaxte Pape Bouna Thiaw soo moytu nag dina fa sampaat kii di Amadou Diallo Pape Amadou Diallo numéro 10 bi donte sax prestation contre Mauritanie bariwul. ci nag beneen côté bi daañu fa am kii di Malick mbay waaye tamit euh, ci attaque de point bi daañu am Cheikh Ibra Diouf loolu nag lañ jàpp ne mooy onze de départ bu Pape Thiaw tey jii si demi-finale yi ci gardien yi tamit daañu am kii di Pape Amadou Sy muy gardien titulaire bi voilà donc comme ni ñu ko gisee rek euh, daanaka daanaka kii di Pape Amadou moom daal moom moo euh, nekkagum si camp yi voilà ba tey tamit ci xibaar yi dañuy àddu jëmale ba tey ci. li nu mel ndaxte nag Sénégal bi yoon nag dafa war a jéggi taarix bi nga xamante bind na ko muy nag palmarès bu gën a am doole ci compétition bi muy euh, di wàllum demi-finale. xam nga ne nag atum 2009 muy édition bu njëkk ba Sénégal bokkoon na ci ba yegg ba ci demi-finale yi waaye nag euh, mujjul jàll Ghana moom moo ko éliminé woon ginnaaw si euh, teg dóor yi juróom-benn si juróom-ñaar temps réglementaire ku ne am benn. Sénégal foofee la 3e place bi tamit mu ñakk ko ci kanam Zambie ñaari bal ci ben motax nak tay ji ñu gis ne dal jaloore ji nga xamanteni ni xale def nañ ko ci compétition bi ci phase de euh, phase de poule ak yu ñu mel motax dal ñu yaakar ne dal dañuy mëna a euh, équipe bi nga xamanté moo Madagascar ñu japp jàpp sax mom tamit ku jërëm moytu la ndax nak euh, révélation la li mu def dal ci compétition bi wuñu ko won fofu moo tax nag euh, ñuy ñaanal équipe nationale bu Sénégal mu am ndam su ko defee rek mu jégg barrière bi nga xamante ni mooy barrière Madagascar ba noppi tamit bindaat beneen euh, taarix ci football rawatina championnat d'Afrique des nations.